kooku moom dootum mënuma wax ci moom muy Moussa Diop ki nga xam ne moo jiite dem dikk man ba mu nee autoroute à péage bi Touba bi dañ koo war a dindi boole ko katapalaa man booba laa ko dindi moom teg ko def ko déedéet man booba dama koo dindi moom yóbbu ko ba àllub kaañ mu naa mën ko ma tegal ko ko fa ndax ñun ku bëggul Serigne tuubaa ñun waruñu la bëgg waruñu la déglu sax Moussa Diop man duma ko déglu ba képp ku ko jege sax duma la xool ndax ñun lu ñu am Touba la lu ñu am dañ ko war a def sëñ Touba kon sus Macky sàll gëñëwut te ay nitam a tax gëñëwut mu ne ñun ilaa Touba bi dañ ko war a yóbbu ilaa Fuuta ilaa Fuuta mun naa mën ko na ko fa yóbbu ñun ñu ngi toog Touba di xaar sëriñ Touba ñun woo xooruñu ko moom Moussa Moussa moom lu dul loolu dana ko dal lu leer laa lay wax gis nga lii moo feeñ waaye am na leneen luy génn lu dul loolu dana ko dal